libération xëy ñëwaat ci tiis woon ca l'hôpital Magatte Lô ca Linguère ak lakk gu fa faat juróomi liir yu tooy xepp di liir yu matul woon nekkoon ci couveuse yéenekaay bi ne enquête bi ñamu joxoñ mooy personnel ba fa nekkoon de garde ci jamonoy jéey ji ndax nag bi lakk gi am relève ba dañoo waroon wuutu seeni naatangoo kenn gisu leen woon ak i gët yéenekaay bi ne daan ci seen wàllum liggéey nag moom munta ñàkk fileeg ak topp wala déet ci wàllu yoon libération xëy wutaliwaat Linguère ak la fa tukkeegum ci enquête ba gannaaw musiba ga fa woon juróon lu toll ci ñeenti liir faatu ca lakk cabinet personnel de garde hôpital libération l'histoire histoire d'indiquer que l'enquête eh l'enquête sur la mort de nouveau né à l'unité néonatale de l'hôpital maguette de Linger accable totalement voire complètement le personnel de garde des SAN bon la relève était introuvable au moment du déclenchement de l'incendie voilà ce qu'indique justement l'enquête à lire dans Libération le journal

libération le soleil ak glace ni wala napp gi ci Sénégal bëgg-bëgg mooy ci Sénégal ba tax lu toll ci ñeenti téeméer ak milliards dinañ ko